doon jëmm joo xam ne feesoon na dell ci waajtaay wu sëkk fees dell ci xam-xam fees dell ci ragal yàlla fees dell ci e, mbooleem lu ñuy xaar rek ci nit koo xam day doon jëmm juy juy liggéeyee lislaam si Mor Jaara amoon na waajtaay woowu noonu noonu noonu lañ ko xamee mu màgg ci noonu nekk fi di fi liggéey liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi ko war mm. muy liggéey bi nga xam ne moo fi indi woon doomu aadama ci kaw suuf ndax suñu borom tabaaraka wa taala dafa waxoon ne dafa indi dafa bind doomu aadama yi indi leen ci kaw suuf ngir ñu ngir ñu dundal suuf si ba noppi taxaw fi taxawaay bu rafet ci moytu lépp luy ak yàq moytu lépp luy tur deret moytu lépp luy eh, luy ak ak noonoo ak mm-hmm. safaanoo mm-hmm. loolu nag moo taxoon moom bi mu ñëwee position boobu rek taxawaay boobu rek la jëloon mm-hmm. muy ginnaaw bi mu xamee fi mu fi mu jugee loolu jo may na ko mën a xam fan lay teg tànkam kooku mooy sëriñ Mouhamadou jaara mm-hmm. ci tënk rek mm-hmm. niñ ko xamee temps bi du ñu may li ñu bëgg a wax lépp waaye nag dañuy xam ne dañuy jubloo junj ay joxañ rek yoo xam ne mm-hmm. danañ ci mën a teg suñ baaraam daal di xaw a xam tuuti ci jëmm ju sell yooyu si Seyxuna Mouhamadou Diarra ñaan suñu borom fayal ñu ko yokk leeram te taas ñu ci barkeem waaleykum salaam jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad tontu bu am solo boobu doyoon na sëkk ci buñ ne kan mooy Maam Mor Jaara ak fan la cosaanoo ñu ne moo ak Cheikhul Khadim ñoo bokk lépp waaye ni nga ko indee ni nga ko leerale ak ni nga ko tàqantale macha allah wax dëgg yàlla tax na mu leer loolu ñu bu baax baax di la ci gërëm nga xam ne ci biir li mu wax rek ñu ngi ci dégg bayit ba nga xam ne ci biir aw askanam moom la bu saydu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lam tasal fii damaa ilal kaw ni tuxsaaru lakal ummahaatu wal abaaw ndakate képp koo xam ne yàlla namm naa def ci moom aw yiw képp koo xam ne yàlla namm naa doon mu doon nit koo xam ne nit ku ñuy gërëm tey rek lay doon ndakate yàlla moom da koy waajal bu baax baax ci fépp foo xam ne fa lay jaar yàlla da koy waajal ci aw askanam waajal ko ci aw askanam waajal ko ci ak ndawam waaye waajal ko ci li nga xam ne moom moo di am njàngam ak lépp te Cheikh Abdoul Ahad indi ci loo xam ne lu am solo la nga xam ne moo naa gën a yaatal ba anjul ñu ci am njàngam lu baree bari waaye doy na sëkk ñu ne maam maam waajuram moom moo ko moom moo ko jàngal nijaayam di suñ mosoo ba itam moom moo moo ko jàngal li nga xam ne moom moo di xam-xam ak bontu jaar na feneen mu doon ko géeju ci wàllu xam-xam xëy na jombut ne dina si ñëwaat bu baax a baax ñu jàll ci euh, beneen point bi si tege mooy ginnaaw bu ñu xamee Maam Mor jaar Borom Sam ci wàllu askan ba noppi ginnaaw bu ñu xamee Maam Mor jaar Borom Sam ci wàllu euh, fi mu cosaanoo ginnaaw bu ñu xamee Maam Mor Jaara Borom Sam ci wàllu am njàngam ak yooyu faaw nag ñu xam kon digganteem ak Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ndax ku ne xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon wenn waajur wu jigéen ak wenn waajur wu góor leer na ci biir wax ji ñoo bokk wenn askan leer na ci biir wax ji te it Mamor Diarra moo ko mag ci ay at ndax suñ bi wax ne ko ne cinquante la gane àdduna ca suñ ku tedd gi cinquante cinq lañ koy wax ba cinquante ak donte mën naa am ci ci taarix yu wute yi kon nag faaw ñu xam ban relation la amoon ak ki nga xamante ne nii moom moo di Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul loolu ñu ci ànd suñu mag sëñ euh, Mamor Mbacke Euh, suñ mor soxna ñu gën koo xam ne suñ mor soxna euh, suñ maamoor xam sa diine mu ñëwal nañ ci relation bi Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul amoon ak ki nga xam ne moom moo di Maam Mor seen dund yi seen dëkkiin relation bi ñu amoon ci euh, man ma ko mën a waxee ak ndaw ak mag lépp looñ ci mën a tënkal ci diir bu gàtt suñ maamoor bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al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 den ndokkee ñaan suñu boom defal lu tawfiq ñaan sëñ Abdoulaye yàlla ay buur mi fi nekkal borom sàmm yi ñu waxtaane yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko lool mu àggale mboolem ay naalam ba ki yeneem jërëjëf Abdou Khadir waaye jërëjëf itam Cheikh Abdou ci kàddu yu am solo yi mu jiite nga lalta laltaay laltaay bu am solo boo xam ne ubbi na bunt yu bare bare bare ci li ñuy waxtaane mm-hmm. euh, laaj na laaj bu am solo muy digga ma Serigne Touba man nga ko tënk ci ne mosuñu teqali ko ñoom ñaar mhm. waaye nekkoon ñaari misaal yu kawe waaye nekkoon ñaari royukaay yu mag a mag a mag ci mboolem jullit yépp ndax dañu boole woon ñaar muy xaraaba ak iraada mhm. muy jege ñaale def naa kuy jege Sëñ Tuubaa Mamadou Diallo gën a jege ndax ñoo bokk wenn waajur wu mhm. góor wenn ak wenn waajur wu jigéen mhm. loolu ak jege mënu ko weesu waa li ñu tudde shaqiq mhm. shaqiq bu fekkoon da jël ji mu xar ko ñaari xar wenn xar yooyu la wax saqiq wee saxi boo ko muy jënd jëm walla ci Sëñ Tuubaa kon seen alaaxa nekkoon alaaxa axawiyya wa iradiya moo doon nañ dund bokk gi leen yàlla boole xam ne def def suñu borooma waaye nag eh, don dund ak taalibe ci dégg moom ndax dafa jaayanteek moom ni ko ni ñu murid yëpp moom mm-hmm. def ko sëriñam def ko njiitam def ko kilifaam ak donte mooy magam te ñu bokk ñaari wajur yëpp mm-hmm. waaye bëggoon ko itam bëggeel gu tar lool gu ràññ ko gu fés mm-hmm. Sëñ Tuubaa it teg ko foofa daa ko daa daa yabal lu bari ci ay taalibe ci moom ngir mu di leen den di leen tarxiya di leen seen liggéey eh, mu suy itam rôle bu ama am solo ba mu ci wooteb Serigne Touba bi mm-hmm. ndax ci njalbeen lañ tàmbalee jaxasoo mm-hmm. te teqalikooñ ba ñu delloo ci borom subhanahu wa taala mm-hmm. waaye jamono ju nekk nag danaa taxa ci wetu Serigne Touba di ko dëgëral di ko jàppale di ko défendre di ko waaye itam di dëgëral murid di leen soññ di leen ñaax ngir ñu gën a am pas-pas ci liggéey bi ñu liggéey Serigne Touba loolu des ñëw ci ci tomb yi ñëw mm-hmm. lool lool mooy mooy mooy bu fekkee da ngaa boole boole boole lépp muy muy ànd bi mm-hmm. waaye ma ne su ko teqali barab bu nekk nañ fa nekke woon mm-hmm. bu dee bi ñu nekkee Saalum ci woote Maba boobu sëriñ bu soobee ma nga ma nga woon naawel sëñ Mor Anta nekk Poroxaan sëriñ Tuubaa nekk waajum sëñ Mor Anta nekk Diagne nekk nijaayam sëriñ Bousso bi sëñ Basiir wax na ci menul baaxil xadim ne sëñ Tuubaa bari na lu mu daa jógee fa mu nekk di fekk Maama Diagne fi mu nekk di fa am weer mhm. mbaa ñaari weer di delluwaat mhm. <coughs> wax nag diggante ba mu daan am foofu daa yooyu jam doon doon sàkk ci xam-xam wax nañu xam-xamu bi bi eh, xam-xam bi nga xam ne ci la ñuy ja mooy jàngale way mhm. aruut xanaa jàngale way xaafiya ak yi ci aju ah, booba xam-xam boobu lay jàng ci moom féete sëñ Bousso bi ki féete ak waajur sëñ Maodo Sali ba fekk na nijaayam ji ko doon jàngal muy <coughs> tafsir Mbàkke nu fekk na mu wàccee ab liggéey mm-hmm. euh, sëñ Basiru nee na sëñ Afi Ñang nettali na ko ne ko mm-hmm. bi sëñ Tuubaa di di jóge ci maanaam bi nijaayam maamum jooju di faatu mm-hmm. moom mi ngi la tëjëdaan <coughs> xam nga dafa ñu wax ne mokkal na am ñu ne la tëjëdaan waaye ne waaye sëñ euh, sëñ dafa wax ne Eh, jëli naa axbar ni baadu seqaat mm-hmm. ak seqaat yi mu ngi ci lu sëñ Afiya ñan mm-hmm. mi bokk sëñ si Amadou Fadil waajuru jigéen moo ko nettali loolu kon mays na jàpp ne lu wér la eh, kon ñu xam ne kon sàkkoon xam-xam ci moom ci bi ñuy bokk nekk nekk bi nga xamee ni itam la jiitu loola mm-hmm. seen alaaqa ci mooy bi Sëñ Tuubaa sampe yoonu murit ba sañ ci Daaru Salaam wax ne seen diggante dafa gën a jaxasoo mm-hmm. ndax ba mboolem lu aj ci wàllu këram njabootam mm-hmm. da ko dénkoon sëñ Mor Jaara ak sëñ Buso bi ndax boobu la daan dugg xalwa dara bari daanaka nekk laf ci ëpp daan ci àll bi mm-hmm. waaye mbirum këram moom sëñ Mor Anta sëñ sëñ Mor Jaara ak sëñ Buso bi la ko bàyyee moo loola waral sëñ Mor Jaara moo tudd Cheikh Amadou Moustapha sëñ Buso bi moo tudd Cheikh Amadou Fadali kon mooy tegtal ne seen seen léppum seen mën a këram ak lacaaju ñoom ñoom la ko féetale woon mm-hmm. loolu lépp kon di di àllaaxe bu dëgër bu leen boole mm-hmm. ak luy gën dëgër seen diggante Tuubaa mm-hmm. nekkee Tuubaa danga xam ne sañca na Tuubaa àllaaxe bi dafa gën a continuer eh, bi si Sëñ Tuubaa nekk nekk Tuubaa yépp comme noonu ma la ko waxele waxe mooy dafa eh, daan dikk lu bare bare bari Tuubaa di ko nemmi waaye ci jamono la daan soññ taalibe yi nag mm-hmm. nga xam ne léeg-léeg mu dajale ñoom ñëpp ci mm-hmm. waxaan Sëñ néew fa mm-hmm. mu soññ leen ca leen daf leen dajale mu noppi doo di wuti lu mu leen añale lam leen di añale ëllëg da ko da ko ba téye ko ci ko ne gën a farlu gën kon naka loon doon gën a soññ taalibe yi di leen gën a nekk loolu kon ku ko jàppale woon kon liggéey bi mu doon liggéey la Touba nag mm-hmm. ba sañ ci Mbàkke Bari mm-hmm. nga xam ne boobu mi ngi waajal liggéey bi muy liggéeyal boromam mm-hmm. taxu seen àllaa xa dagg ay leetar mi ngi doon dox seen diggante si Touba di ko yónnee leetar bu bari leetar ba ci gën a siiw bi mu ko yónnee ak ñëwee ci géej gi daanaka benn la muy leetar boo xam tudd na ci lu ëpp da ko da ko adressé ni Mor Jaara sama genn wàll sama doomi ndey sëñ Mor Jaara mm-hmm. wala ami Cheikh Ibrahim mm-hmm. mooy sëñ Mbàkke Kajoor mm-hmm. wa Ibrahimu Saxiir mooy maam Cerno wal Muxtaar mooy sëñ Gaawaan wa Muhammad Muhammad mooy mu ngi ci jublu sëñ sëñ Seex Coro wa Ahmad Ahmad mu jublu ci sëñ Afiya mi nga xam ne moo bokk maam si ante lépp tudd mboolem ak ak mboolem doomi sëñ Mor Anta Sali yi ne foofu euh, daan ak jëm ci mboolem julli ju góor yu jigéen yi. Mm. ak seex seexu Omar. Mm. mooy sëñ Sayxu Buso. Mm. xam nga seex mu Fuuti Taal lañ ko tuddee. daan ak mboolem nag doomi sëñ Buso bi yëpp. Mm-hmm. bi mu noppi ci nuyo bi. mu wax ne amma ba'du falaykum fi sadrikum xarajun. min kulli ma sadara min min jihati ma yushabihu al adabi. waxata al waxata ar rahim. waalamu bi anni ma faaltu ala amri wala tutib nufusukum maan bi anni fi xalwatin la xayru fa mata uxraj axruj asalaamaaleykum bi jotee nuyoo yi nuyoo ba noppi nag ne gannaaw lool nag bu leen am ci man benn jiixi jaaxa wala wala wala jaaxle gu bàyyi ko ci man luy niroon luy ne dama leen a dama leen a dama leen ñàkk teggin wala dama wala wala wala dama leen wala damaa dogg bokk wala yu mel noonu. Mhm. ci lii ma déggut boobaak léegi. Mhm. ne du dara lu may dama nekk damaa nekk damaa damaa nekk ci xalwat rek. Mhm. saa buñ ma génnee ma génn. kon day mel kon. defalu ko boppam. ma ma ma faatu ala la tegtal na ko. mooy def du sama mbiri bopp. maanaam lu ma yàlla sant la. saa ma génnee rek. dina génn. day lettre ba suñu mot jàll ko adressé kon day wan ne kon ba tey àllaaxe mi mi ngi ko doon téye eh, bi nekkee bi mu nekkee ca yéen mm-hmm. nekkee ci géej gi tam ba tey àllaaxe bi dafa wéy mm-hmm. laataam yi dem daa woo suñu mor jaara mm-hmm. dafa wax Cheikh ne ko maa ngi lay digal li nga li nga daan liggéey di ma ko jox soo ko liggéeyal ba mu sotti na ko na nga ko séddale ñetti xaaj benn bi dem ko joxal suñ Mor Jaara di ma ca fasal jox ko bokk gi war sama diggante ak moom beneen xaaj bi ngi jox maam Cerno Ibrahima Faty ngir njaboot gi féete ci moom mhm. beneen bi ñu ndimbal nga dee nga deen ko jox kon loolu day won ne kon ma nga ma ngay tukki waaye ma ma mi ngi koy bàyyi xel ci ci di ko liggéeyal mhm. ngir sàkku ngërëmam mhm. jaarle ko ci Seex Ibra Faal ba mu demee foofu it lettre yi dëkkut loolu bu ñu ci duggee day day day gudd waaye lettre yu bare bare bare tiim naa ko fii yoo xam ne yëpp sëñ Mor Diallo ko adresse mu jëm mu jëm ci mu jëm mu jëm ci naa ci indi wenn bayit rek ci ci ci lettre mujj bi mm-hmm. yaa ayuhal kabiro yaa Muhammadu mm-hmm. parce que ni nga ko adressé ak fi mu ko teg mm-hmm. yow mag mi yow ko mag di Muhammadu kun li si xaarika ma an fa taxmadu na boole say rak ngeen ànd nekk benn hadaakumullah siraatu mustaqim wa ankumu nafal la wa saqim ca ca lettre bu jiitu boobu itam mm-hmm. am na fu muy wax ne yéen ñi yow Sidi Muxtaar mm-hmm. ak Cerno mm-hmm. ak ñi ngeen bokkal ñëpp sëñ mo sëñ moo jàll wax nag na nga leen boole ngeen nekk benn ndax na nga leen yërëm ñoom it nañ la màggal fal tarham wala yu bajjiloo ka na nga leen yërëm waaye ñoom it nañ la màggal kon wan nañ kon sëñ moo jaar ko ñu war a màggal la te ku màgg rek la des les les si màggal mu des seen àllaaqa nag ci xaadisab daaru manaan bi mooy mooy xew-xew ba fa amoon mm-hmm. ci diggante mbaaxaa nag coow la amoon diggante diggante buus yi nag mm-hmm. bañ jëm sëriñ bi ne dafa de yor gànnaay bëgg a xeex yëpp euh, dawru bu mag a mag a mag la si mor jaar suyee tubaab yi seen seen seen euh, rapport yi bin mm-hmm. turam di ñëw lu bëree bare bëri ñu lim ñoo xam dañoo wax ne ñii suñ tubaab leen gën seen bakkan te ñoom ñoo ko wër bala nga kenn ak Sëriñ Tuubaa danga da nga xus ba noppi ba ñu lim sëñ moo jàll lañ jëkk ba bi ko mbaaxaan de wasa ca foofu ca mburéel sëñ moo jaar dem wuy ji sëñ moo jaar moo wuy maam si Anta mhm. dem wuy mhm. ngir wax ak mbaaxaan mhm. kon day wax ne kon taxawaay bu am solo boo xam ne taxaw na ko Sëriñ Tuubaa ci ci diggante boobu <clears throat> ba ca mujj na mooy àllaa xam bi mu ci eh, diggante Mauritanie ak ak Thiéyène ak njaareem ñett yooyu moo ci des su fekkente ne waxtu may na ko ci tënk rek bu dee ci gànnaar mm-hmm. ba mu fa nekkee wird wi bi mu jotee wirdul maxuus mu mm-hmm. wird di ko sunu borom jox jaarle ci ndu si si mor jaarle la ko njëkk a yónnee ci réew mi mm-hmm. jox ko ndigal ne ko nga jëfandikoo ko bi ñu ñëwee Ceyeen nag moo tax la ko Sëñ Tuubaa ñëw Ceyeen mu daal di jógee Mbàkke dem Ceyeen moom mënutoon dem gànnaar ndax ak magam mayu ko ko woon waaye cëyin moom bi mu ñëwee la si la fa demaat mm-hmm. la dem nga cëyin it mooy mm-hmm. dañuy jàng ne uh, wér du ko la koy jox mm-hmm. dafa war nekk dafa war nekk musaafaha mooy mooy mooy mooy ngeen jàkkaarloo mu jox la nga nangu. Mm-hmm. nga da ko yónnee woon nag war naa dem mu joxaat ko ko joxaat gu bees ci ci ci musaafa mu ci jàkkaarloo. Mm-hmm. waaye teewul nag mu mu dem fa ay yoon yoon di siyaara ji di yóbbu hadiye. Mm-hmm. léeg-léeg mu yebal mbooloo ñu dem yóbbul ko ay hadiye. ci yéen. ba nim ña ñëw njaarim loolu dëggul njaarim ne seen àllax gën a am nag yu bare bare bare bare. foofu la xewee. li xew digg mag moom ci njaarim la xam na bu kàddu gi desewaat su fekkente ne waxtu may na ko. incha allah ñu ñu gën cee xuus incha allah. jërëjëf sëriñ Mamor ci leeral yu am solo yooyu euh, ku ne xam ne temps bi bu gënoon a bari macha allah danañ ci gën a yaatal bu baax a baax ci diggante borom saam ak Seexuna Ahmad Bamba Xadim Rasul euh, li muy fi li muy firi rek ci gàtt bu nga ko tënkoon ba nëkk rek mooy la sëñ bi la sëñ bi ma xamaloon taalibe yi rek ne leen ñoom ñaar day mel ne ñaari ndaw yoo xam ne dañ leen a yónni ci benn barab laaj leen ndax bu ñu demee ñaan yëpp dañuy wax wala kenn ki day wax ki ci ki ci des noppi mag ñi mag ñi lott ci tont li muy leen kenn ki mooy wax ki ci des nopp ne leen man maay kii wax borom saam moom mooy ki noppi lool loolu moom la relation bi di firi ndax ku ko dégg rek da gis ne bu toujours li ñaar li ñu bokk mooy asaq gi mu doon ci moom mooy genn wàll gi mu doon ci moom bokk gi ñu bokk genn wenn waajur dafay mel ne kon liggéey bi boo doon xool day mel na lu ñu bokk waaye kenn rek moom mën a def liggéey bi te Seexna Ahmadu Bamba moom moo ko defoon moom la ko yàlla moom la ko yàlla jagleeloon moom loxo la yónnee woon waaye borom saam nekkoon koo xam ne app yi na ko muy jàppale na ko ci mboolem fu ñu ànd nekk mboolem fu fekk ak dundam rek gis nga taxawaay bu am solo bi nga xam ne borom saam def na ko ci xëy na bu ñu temps bi gënee gënee gënee gënee may dañ ñëwaat ci diggante bi ñu nekkee Jurbel nga xam ne euh, nekk nañ diggante bu yàgg ndax bi ñëw na douze Jurbel ba 1922 yaakaar naa bi fi borom saam du jugee 21 bi borom saam du jugee kon am nañ ab diggante boo xam ne euh, nekk bokk nañ ko fi nekk lu baree baree baree xew ca xëy na temps bi bu ñu ko mayee dañ ci ñëwaat waaye ci biir waxtaan wi léegi nii euh, euh, sëñ sëñ Mamor dafay tudd relation bu dëgër bi nga xamante ne nii maanaam borom saam daf ko doon am ak ku tedd ki wante itam ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon ndax dégg nañ lu baree bari ci leetar yi bu tuddee borom saam ba noppi rek dafay jël ci ca ca yeneen mbokk ya léeg mu ne ko nañ dee leen yërëm tañ lay màggal waaye toujours dafay leen di wax ne leen koy màggal ndax daa ñu war di màggal ci la ñuy dugg ak Serigne Makhtar Mbacke euh, moom moo ñuy xamal moom moo ñuy waxtaanal leeral tuuti bokk ci ñooñu nga xam ne ñoom la Serigne bi waxoon ci leetar yi leen dee leen màggal borom saam naka lañ doon dundee ak borom saam benn relation lañ amoon ak ñoom màggal googu naka lañ doon demee waaye yërmande googu naka la borom saam doon doxe digganteem ak ñoom Serigne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 ziar bu baax sëriñ Abdullahi Mbacke yàllaay buur mi nga xam ne moo toogee jataayu suñ moor Jaara di ñaan suñ boroom gën koo aar gën koo sàmm gën ko fee yàggal gën a wéral yaram wi te mottalil ko moom itam ay mébétam yépp di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ak fuñ mën di nekk di nuyu suñu kilifa sëriñ Mor Mbacke moom sëriñ Jili Gànnaar ak mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal jataay bi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw fekk si ñu ngir yaatal rek eh, liggéey Sëñ Mor Jaara ak gën a xamal taalibe yi kan mooy Sëñ Mor Jaara ñuy rafet lu baax tànk yi ak jéego yi di ñaan suñu borom boole ñu defal ci liggéey bi tawféex te defal leen ci seenug liggéey ñoom itam tawféex eh, sëriñ Abdul Xaadir comme ni nga ko waxee Eh, sëriñ Mor Jaara digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal mhm. dafa nekk diggante bu rafet boo xam ne bii taaru gi mu taaru